alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi. jërëjëf euh, mbokk téléspectateur euh, Kossy TV ñu leen di nuyu baax di leen ndokkeel di leen wàccee ku si ne seen wàccuwaay si ñetti fanu alxuraan yi nga xam ne si lañ jógee ko ci Medina Baye. di ndokkeel baax a baax xalifa euh, saahibul fajatu tijaaniya xaadimul umma cheikh mouhamadul maahi waaye euh, di ndokkeel imaamul akbar moom cheikh tidiane aliou cissé waaye Kossy TV mi ngi ndokkeel baax a baax sayaxa yaa nee na mi nga xamante ne nii dëgg-dëgg kenn ku nekk si yéen dégg ngeen sant ak ngërëm gi nga xamante ne nii pays bi yëpp ñu ngi ko koy delloo si jëf ju rafet ji nga xamante ne jagleel na leen ko muy si kaamil yi muy si yeneen xew-xew yoo xam ne mu nekk ci Medina Baye kon dañ koy bàyyi rek moom tamit mu dellewaat njukkal askan bi ak taalibe yi nga xamante ne ni joxoon na leen ndigal si taxawaay bi si kaamil yi comme gannaaw bu imam xalif papaam léppam wootee si kaamil bi taalibe yi daara ji ñu ma jiital si Moxtaar Jaas ak ñi si aju ñëpp te critique ngeen si ay kaddu joxe ko kon dañuy bàyyi rek kilifa gi moom tamit mu ñaanal yàlla taalibe yi waaye ñaanal yàlla tamit njaboot gi kon ni ñu ko doon defee at bu jot incha allah ñu yàlla bu baax di jëli ci yonent bu tedd bi sala sant salaam di sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu di wax jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf sama maam Mawlana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu di wax ne am nañ fi gan gu gu sell muy suñu yaay Badiane mi nga xam ne moo toog nii nekk doomi sama maam Mawlana Cheikh léegi moom moo toog ni ci jotaay bi ak imam akbar ak njaboot gi nga xam ne ñoo teew ñëpp ñu ngi ni teew xanaa ngeen jox sama sëriñ rek bàjjan faal mu sànni ci ay kàddu ñaanal yàlla faal allah allah allah allah bay allah allah allah allah allah allah laa ilaaha illallaah yu bay ñol ko si yaa ñi rog rasulillah rafaar lii du niroo moom la moom la rafaar njool ko si yaa di faal lii du niroo moom la moom la rafaal bëgg nañ la dootul dañ bilaay maam ibra waayu baay la suñu bëggee gi dootul dañ maam ibra faalo maam Ibra Faal waayu baay laa rafaal njool ko si lii du niroo ndeke moom la moom la rafaal njool ko si faal lii du niroo ndeke moom la moom la rafaal bëgg nañ la dootul dañ bilaay maam Ibra Faal waayu baay laa maam Ibra Faal waayu baay daaw suñu mbëggeel gi dootul dañ maam Ibra Faal maam Ibra Faal waayu baay daaw laqad ataana tayyibul qadiim wa Ibra Faal xutbu qadiim rafaal lawlaa Cheikh Ibra Faal faalan fa dooli awlee faal rafaal njol ko siyaani roog rasuulillah rafaal lii du niroode ke moom la moom la rafaal njol ko siyaani roog rasuulillah faal lii du niroode ke moom la moom la rafaal njol ko siyaani roog rasuulillah lii du niroo dekkee moom la moom laaw Ibra Faal bëgg na yaa dootul dañ bilaay maam Ibra Faal waayu baay daaw maam Ibra Faal waayu baay daaw maam Faal bëggeel gi dootul dañ bilaay maam Ibra Faal waayu baay daaw Ibra Faal Allah maam Ibra Faal mooy waayu baay Allah maam Ibra Faal billaay mooy waayu baay Allah maam Ibra Faal ñun bëgg nañ la maam Ibra Faal baay Allah maam Ibra Faal yow la ñu yaakaar Seex Ibra Faal yaa indi leer gi Ibra Faal xam yàlla ñëw na maam Ibra Faal maam Ibra Faal Allah maam Ibra Faal billaay mooy waayu baay to Seyda yaa nee na maa bu baax di la siyaara di la sant di la gërëm di wax si sikar bi ngeen sikar léegi maam Ibra Faal sikar yëpp moo ko si gënoon a neex mos nañ ko topp di dem kër baay boobu ñu ngi miiree miiri baay bi ñu top ko di sigar di sigar ma Ibra rafal yalla la mu gessu ñu taxaw ne bay leen sigar boobu duuma yalla sigaral leet ma ma Ibra rafal yaay way bay sigar boobu la bëgg ñu koy sigaral boobu bañ yegg euh kër bay ñu continuer suñu liggéey ñu lay bëggalé lool ñu lay sant bu baax di la gërëm di la tiitaroo ci tam ci pé bi di am kontaan tamit teew sa kër gi yàgg naa ko bëgg waaye tey la ko yàlla dogal waaw ba nga sancee ba léegi maa fi bëgg a ñëw waaye tey la ko yàlla dogal te maa la bés bu ñu jàngatee kaamil ajjuma fii laay añee si incha naa la loolu tey waaw maa lay bu baax yàlla dëgëral sa taxawaay yàlla wëttu la xaar la ni wëttoo alquran yi ñu doon jàng ba nga xam ne kenn mënu koo yokku kenn mënu koo wàññi yéen yàlla wëttoola ko boobu kenn mën si yow dara lu jéem si yow lu baax maam Ibra Fall moo la garante bul tiit bul ragal heure boo tëddee nelawal waaw maam Ibra Fall kum garant rek xam nga garant te leer nañu ne moola la garante waaw ñu lay sant ñu lay gërëm bu baax di la ñaanal yàlla sa taaliba yii yàlla bu gis ñoom dara lu leen naqare ni nga xamee ne maam Ibra Fall xandam ak bàyyi mu dara méttiwut ko si loolu say euh, xalim ba mu ko mujjoon xen fu mu xàndeeg bàyyi ba fu mu tàqale ko ak bàyyi loolu moo ko si metti sirr boobu yenn yàlla jox ñu ko tànk boobu nga xam ne moom la doon dëgg mosut koo teggi ba nu mu xëy ju ba bàyyi tànk boobu yenn yàlla jox ñu ko yàlla buñ ko teggi mukk yenn yàlla jubal ñu jubal suñ topp jubal suñuy njaboot jubal mboole mu jullit xaddina métti na lëj na waaye Baay Ñas nee na ñi si warta bokk buñ si bokk mu ne si wartu bokk xam nañ seen bopp buñ si bokk te ñun ñun ñii ñoo ñi si wartu bokk waaw yàlla buñ si bokk mukk yàlla nañ bokk si ñu raw di rawale yaara bi yàlla mën na loolu xam na ko yenn ñu ko yàlla defal si mbaaxam ak kàttanam barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Seexu Tijaan radiyallahu anhu barke Baye ak Bayam barke Mawlana Sey Ibrahima Fall barke Seydi Aliou Cissé barke Imam Assane Cissé radiyallahu anhu barke mboolem jàmm ba xam gërëmal yàlla barke allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim kontaan naa trop macha allah. alhamdulilah. alhamdulilah jotaay. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ني سنت يالا دي غرم مولانا شبر رحيم دي نجيكل مام شبر فال والله كاد يمرون ديغ ديغنا سي يار اك دال اك تي كاد لير لا باسخ من مو مو مو مو مو توي سما بوتيني kon nag ñu ngi lay ndokkeel yaa booy di la ndokkeel ci bés yi nga xam ne mooy bési alquran te bési alquran mooy bési bàyyi bàyyi ba yàlla ba wëli yàlla yi di tànn moom alquran la tànn kon nag ñu ngi lay ndokkeel ci bés bi nga xam ne buñ la ndokkelee ndokkeel nañ bàyyi ndax am nga cër ci bàyyi kon buñ la xeñtoo ngir alquran ngir bëgg bàyyi xeeñ xeeñtu nañ la ngir bàyyi te am nga cër ci bàyyi lay ndokkeel ci loolu di la ñaanal yàlla na yàlla wëtt la dafa la jàmm ak sutura ak yokk ci zaar ak ci baatin yàlla na yàlla may ñu barke alquranul karim yàlla na yàlla may ñu barke alquranul karim yàlla na yàlla may ñu ngëneel alquranul karim yàlla na yàlla may ñu mbootum alquranul karim ndax alquran mooy lépp wax dëgg sama xool tooy na ba mënu may wax sax daa ndax sax damaa xamul lan lay wax daal damaa xamul daal lan lay wax alhamdulillah daal alhamdulilah yàlla ñaan nangu suñu ñaan di ñi di nit ñu mboolem li ñu ragal ak xat-xat yeeg jafe-jafe yi jamono lum xat-xat-xat yàlla buñ bokk ci ña koy yëg yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne dañuy sant yàlla daa iman ya rabbal alamin lu jamono yëngu-yëngu lum xat-xat lum jafe-jafe yàlla buñ ko yëg ya rabbal alamin yàlla nañ bokk ci ñuy sant yàlla daa iman dëkkee ko nag ba keroog yow mi yëpp xasan allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim allah geejo ku cayrooti soydaagu doo manke ndool wuysilen ci baay geejo ku cayrooti soydaagu doo manke ndool wuysilen ci baay geejo ku cayrooti soydaagu doo manke ndool dayda ilalla baraama misal naa la yaay geej gi doo manke ndool seexi nin ni caam geejo ku cey rooti soyda gudu manke yey nin ni caam geejo ku cey rooti soyda gudu manke ndong la ilaha illallah misal na la yaa geejji do manke ndong la ilaha illallah loo ñaan baay mu may la ko soo mu ñëw taxaw ne doom bu ragal ku la tooñ maa la koy dumal la ilaha illallah Cheikh neen na jaam gi jooku te rooti soy daa gudu manke ndox maam Ibra Faal gi jooku te rooti soy daa gudu manke ndox la ilaha illallah loo ñaan baay bu may la ko soo mu ñëw taxaw ne doom bu ragal dara ku la tooñ maa la koy duma la ilaha illallah ilalla bëgg baay ñës du gay ne la ñay gay ne su dee nelaw ku koye mu réeréel mooy tuul ma xaala baay bi la ilalla ilalla baayoo yaa ñu doy fii baayoo yaa ñu doy fee baayoo yaa ñu doy fële baayoo yaay suñu sëriñ laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah karamaay baay wër na Sénégal baraama ñesee nango laa ilaaha illallaah géejoo géejoo géejoo ku cey rooti soy daa ku doo bank no ilalla barama barahama barahama gi doo manqué ndox rooti soy doo manqué ndox jaamu ibra faal la géejo ku tey rooti soy doo manke ndaw jaamu ibra faal la géejo ku tey rooti soy doo manke ndaw la ilaha loo ñaan baay mu may la ko soo mu ñaw taxaw ne doom bu ragal dara ku la tooñ maa lu koy duma la ilaha illallah la bëgg baay ñëstu gaynde la ñay gaynde su dee nelaw kot mu reere la mooy tul maala baay bi la ilaha illallah illallah faal géejoo géejoo ku cey rooti sooy daa gudoo manke ndo illallah barahama barahama baraama misaal naa la yaay géej gi doo manqué ndox ilalla yaay neen ne jaam suñu sëriñ layla ilalla ilalla yaay neen ne jaam suñu sëriñ layla ilalla ilalla jaamu maam suñu sëriñ layla ilalla ilalla jaamu maam suñu sëriñ la ilalla ilalla Ibra Faal waayu baay bëgg maam Ibra Faal waayu baay bëgg nañ ngay suñu yaa ilaallah bëgg baay ñës gaynde la njaay gaynde su dee nelaw ku ko yee mu reerel mooy tuul ma alam baay bi laa ilaaha ilaallah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala maa ngi ndokkeel ñëpp di ziare ñëpp di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina sang bu tedd bi nga xam ne moo teew ci suñ jotaay bi mu yaa bàjjen Fall nga xam ne doomi sama maam Ibra Fall la mu nekkal ñu fale ci Kossy Kossy gi nga xam ne imaam Cheikh imaam Assane Cissé moo ko sanc ci weti Kossy Baye nekk fa ak borom këram di Baye Diagne ñu ngi koy ndokkeel di ko ziare di ko tatap di ko wax ne bisimila kër gi sa kër la sang bu tedd bi ya boy faal fi sa kër la ñu ngi lay nuyu bu baax man ak jabot gi yëpp ñu ngi sukk ci sa kanam di la wàcce sa way di la ziaré ci jëmmi sama mam Maulana Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu taala anhu di la ziaré ci jëmmi njabootu sama mam yëpp tay sa téway bi moy téway yu kosi moy téway mbolam njabootu sama mam Maulana Cheikh Ibrahim Fall ñu góor ñi ak ñu jigen ñu mag ñi ak ñu ndaw ñëpp sa jotaay bi tey mooy seen jotaay kon ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ziare ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi kontaan ci teew bi nga teew ci màkkaan mi ak ci xadara bi ci barab bi teew kook ñun di wax ne bisimilah. ñu ngi ndokkeel imaamu akbar ci jotaayam ci teewaayam ak ñun yàgg naa teew ak ñun waaye léppam yàlla la waaye léppam Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baay radiyallaahu taala anhu la waaye. ku bëgg njabootu sama maam Maolana Cheikh Ibrahima Fall la parce que rakkam tey moom lañ tuddee sama maam Ibra Fall muy bokk ak moom ndey ak baay fële ci kër ga kon kooku am cër la ci sama maam Ibra Fall seede bi wane na ko mu ñëw tey rek fekkante be yaa booy bi nga xam ne mi ngi soog a ñëw tey ci kër gi yàgg naa bugg a ñëw waaye tey la ko yàlla dogal mu bokk ak moom jotaay mu nekk jotaay bu sell kon ñu ngi leen di wax bisimilah. ci fii seen kër la ñu ngi leen di tatafu di leen dalal di ndokkal suma yaay ak gan ñi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi nii suma yaay ngeen toog mu ngi nekk ak ay naataangoom yoo xam ne bii ñoom ñëpp euh, kilifa lañ ci man maanaam suma yaay lañ ñoom ñëpp waaye yàlla dafa def ma bëgga leen sama bopp ñoom itam ñu bëgg ma ñu ngi nii toog ci jotaay bi ak sama njaboot gi nii ci yàlla yëpp ak euh, ñi nga xam ne ñoo yore sécurité bi itam ñoom itam ñu ngi teew ñi nga xam ne ñoo yore si kër gi tam nga xam ne ñooy sacré bay haadi bay pap bi euh, tey ak euh, papa Thiam ak euh, awasar ak njaboot gi boot ci seen gannaaw yëpp di leen jàppale ci si ñu ngi kontaan bu baax ci seen yëngu ci yàlla maanaam seen tudd yàlla ndaxte sikkar mooy dundal xarifatu bi laay waaye rawatina taaliba baay maa ngi ndokkeel njaboot gi nga xam ne mooy Kossy TV bi tam nga xam ne ñoom laa àndaloon ci sama tukki bi ma defoon ci Gambie ànd ko xalifatu am muy papa Cheikh Mahi Ibrahima Niass ñu fekk fay ñi nga xam ne ñoo ñu dalal ci Gambia muy Cheikh Tidiane Diassé yaa Fatou Gueye imam Mohamed bi tey yaa tata ak njaboot gi nga xam ne moo boot ci seen gannaaw yëpp ak Omar Yaay ñoom ñëpp gata ñu nañu ci Gambie dalal ñu ñoom Aliou Bada ak seen rakk ak seeni njoboot ñoom ñëpp dalal nañu ak waa Gambie yëpp. defal nañ ñu ngan koo xam ne bii nag macha allah ñun demal nañ ba xalaat ni sax ñun ndax dëkkuñ Gàmbi ndax ganale gi ñu ganale ganale gu ñu neexee waaye comme ñun li ñu ganale ganale rek ñun suñ xel Medina lay daj bi waxtu wàññeeku jotee rek dañoo wàññeekuwaat Medina Baye damay waxtu suur ne mboolem réew yi may dem danay neex lool waaye du am maam Baye moo tax moo tax fu ma mën di nekk rek. sa dëpp jotee rek damay dëppaat ñëw ci sama baay muy Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala ki nga xam ne mooy rawee kaay jamono. kon ñu ngi ndokkeel sikarkat yi ci seen sikar bu neex bi gis naa ne tey sikar ngeen sikar bu am xaal ci jumaa ji bi ngeen egsee ci kër gi tam maa ngi dégg seen sikar ci saal bi moo tax ma ne woo leen ma njaboot gi ñoom ñëpp ma dajeeg ñoom parce que seen sikar si dafa am xaal te dafa neex niñ ko defee ci xabru bi noonu lañ ko defee ci kër gi. moo tax ma ne dama leen di recevoir ñaanalante yéen siyaarante yéen saafante yéen wan leen ne seen sikkar bi neex na ci sama kanam sëriñ yaa maam Fall mi toog ndax man njabootu sama maam buñ xasee ba too rek sama maam Ibra Fall moo toog njabootam yëpp a toog kon ñu nekk mbégte mu rëy ci bésu tey bii nii di wax ne maa ngi gis njaboot gi yëpp ni ñu taxawee ci bëgg yàlla waaye damay wax toujours ne yaawa Sarr boo gisee ma sant la nga sikkar ci sama maam njaboot gi feelu la nga sikkar ci sama baay njaboot gi feelu la maanaam yàlla dafa dogal man suma ma bëgg-bëgg yëpp Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu su ma bëgg-bëgg yëpp Mawlana Cheikh Ibrahim Fall la damaa damaa am baay bu mat baay amaat maam ju mat maam looloo tax une fois rek danaa bëgg sama baay danaa bëgg sama maam waaye danaa bëggaale jaami yàlla yi ci biir sama baay parce que aarifatu bilaay sax keroog bu fëggee gëdd nam na maa yàlla bant bi mu dendal sax ci la bokk ci yàlla ji keroog boo ko ci génnee rek yow génn nga ci yàlla ji loolu moo tax ñun ñu ngi taamu si këri njaboot gi yëpp di taamu si kër yaa awa saar bu baax parce que dangaa bokk ci njaboot gi ba pare te bëgg njaboot gi ba pare nekk nit ku bëgg a bàyyi te nga bokk ci jotaay géew yàlla yi toujours sa yëngatu ak sa dal yëpp yàlla la parce que loolu mooy ndawi jamono ndawi jamono boo xam ne léppam yàlla la kooku amul pertement kon ñi ngi kontaan baax ci sikar yi nga yëkkati say naataangoo nga xam ne ay saakaru lañ yëkkati nañ ko ni nii lañ ko nii ngeen ko defee woon ci rawdu bi te noonu moo war a nekk ndaxte baay heure bu fa nit ña tolloo rek dañoo war a bàkk baay ba parce que Baye mooy buur bi ñu war a bàkk amul kenn kuñ war a tëggal junjuñ ku dul Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala parce que moom moo fi tinki lépp loo xam ne tënkoon nañ ko ci jamono moo fi gënte lépp loo xam ne bii luy lépp luy moomeel la Baye moo ko tinki def leen ay buur kon kooku rek lañ war a bàkk te loolu bàkkam googu bàkk giñ ko war a bàkk kooku ñu ngi ko nampee ci jëmmi Maolana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala parce que moom léppam Baye la woon amutoon doom moom doom yi doomi Baye woon doom yëpp njabootu baay gi la leen tuddee ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi kon kooku comme euh, comme yar ci yàlla rek il ca lam la yar rek noona ngay mel sama maam moo ma yar ci baay te baay rek la bëggoon kon il faut man ma bëgg baay su ma bëgg baay gi nekkul lu ñuy làmbatu damay wax toujours ne su ma baay gi damaa judd rek bëgg baay dama bëgg judd rek bëgg baay musuma jaar ci benn tarixa musuma tànn benn tarixa musuma jaar ci benn diine lu du diine yonent bi salaa salaam musuma jaar ci benn tarixa lu dul tarixatu Cheikh Mat Tidiane Sarif radiyallahu taala anhu musuma jaar ci benn serigne ku dul te lan kan moma ci nampatal molana Cheikh ibrahim par radiyallahu taala moma nampatal ci mata moo tax nit ki eh, eh, dafay bugg li nga xam ci lañ ko nampatal foog mu bugg ko soo mi nga namp moom rek ngay moo tax maa ngi leen di ndokkeel yéen ñi toog ci jotaay bi ak ñi nekk ci biti xajuñ yëpp maa leen di ndokkeel parce que tey bisu siyaarante la bisu ndokkalante la bisu saafante la waaye bisu ñaan la tam parce que tey nga xam ne bii nag ci lañ wàccee kaamil yu bari ñaan ci yàlla xat mu ci kaamil bi loolu dafa nekk loo xam ne du du jëriñ lu di em rek ci nit ñi day jàll ba ci garab yi jàll ba ci ndox mi jàll ba ci suuf si jàll ba ci alam bi te lii Mawlana naa Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala anhu moo ko ñaanoon yàlla ku ku yàlla ebal rek yàlla may na la karaama waaye Baye moom bi mu ñëwee dafa ñaan alquran mu nekk karaamaam kon Baye lim ñaanoon yàlla yàlla may na ko ko tey ku teew ci jumaa ji da gis ku toll nii sax jeexal kaamil kon nga xam ne Baye lim ñaanoon ci PM bi yàlla defal na ko ko moo tax ñi ngi sant yàlla di wax jërëjëfe Baye jërëjëfe baay jërëjëfe baay yàlla mu ne ñaan leen ma ma may leen sant leen ma ma dolli leen kon il faut ñu sant Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala ci may gu réy gii nga xam ne may nañu ko tey pay bi yëpp xaal la te liggéey bii nga xam ne bii moom la ndaw yi doon liggéey yëpp ñu ngi ko royee ci Mawlana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala parce que moom dafa takkoon diggam li di di xidmaal baay xitmaal na baay xitmaal na baay xitmaal na baay ba kere bu muy delluwaat ci jëmmi Ibrahimam gi joxe na addiya baay joxe na junne addiya baay ba pare dellu ci baay kon kooku jàngale na ni taalibe di dundee ak sëriñam li yëngatu nii ci pee bi yëpp maam Ibra Fall ñoo moo ñu ko nampatal mais moo ñu ci yar ndaxte baay njobootu baay pee bi ganaar guy dàggu ci pee bi sax kenn waru laa lor ñëpp jox leen cër ngir jëmmi Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye te booy bëgg Baye da ngay bëgg lépp baay amut bëgg naa Baye bëgg Baye kii déedéet loolu bokkut Baye doomam yi Baye lañ jarbaat yi Baye lañ sët yi Baye lañ soxna yi Baye lañ li jege Baye sax baay la ñi ñi jege Baye sax te nekkoon bëgg a nekk Baye sax baay la parce parce que buñ leen di bëgg rek Baye tax ñu bëgg leen. moo tax ñi ngi ndokkeel xalifatu am muy papa Cheikh Maye Ibrahima Niass ci kaamil bi yal ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp lum ci ñaan rek yal yàlla nangul ko ko te yàlla yàggal ko ci suñ kanam di ñaanal imaamu akbar itam lépp lum ci ñaan rek yal yàlla nangul ko ko te yàlla yàggal ko ci suñ kanam yàggal fi porte parole Medina baay ak njobootu Baye yëpp ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi suma maam daana wax na Baye amul ndaw Baye doom yëpp ay wëliw lañ ay mag lañ waye ñi ngi ñaanal njobot Maulana Cheikh Ibrahim gi yëpp waye di ñaanal mbolem mu bu andon ak bay di ñaanal mbolem njobot suma mam Maulana Cheikh Ibrahim Fall ñëpp ñu goor ñi ak ñu jigéen ñëpp ma ngi leen di ñaanal Yalla ñi sori ak ñi jégué yal Yalla nangul seen mbolem ñaan parce que ñom ñëpp en direct la tay légui ni la copé ak doomi suma mam Maulana Cheikh Ibrahim Fall mu di ma ñaanal Yalla tay ta ma dal di ñëwaat rek tassé doomi sama maam Fall mu tok ci suma salle bi di ma ñaanal Yalla kon ma ngi and ak suma mam kon maa ngi ñaan yàlla yana yàlla barkeel ñaan yooyu yëpp di wax ne mag ñi yana yàlla yàggal leen ci suñ kanam maa ngi ñaanal suma yaay yana yàlla yàggal ko ci suñ kanam yàggal fi ñim àndal nii ñëpp soppeem yi nga xam ne ñëpp sumay waajur lañ ñëpp maa ngi leen di ñaanal di ñaanal eh, imaam Assane mi toog yàlla yàggal ko ci suñ kanam di ñaanal yaa booy itam yàlla yàggal ko ci sanam eh, delante bi mu delante ñun ak paslante gi mu paslante ñun kóllëre bis ñu tey ci ajuma ji ci tëj jumaa ji yal na yàlla saxal ko at mu jot mu ñëw teew ci suñ kanam parce que mooy doon suñ maam Ibra Fall yal yàlla may la pan bu gudd ak wér yaram may ko suma yaay mi toog ak njaboot gi yëpp toog ak njaboot gi yëpp ñu nekk ci biir ak ñu nekk ci biti di ñaanal yàlla itam euh, Ibrahima bi te yal na yàlla wéral ko te delloo ko ci sagoom dëgëral ko ba mission bi mu yore woon yàlla dimbale ko mu yore ko maa ngi ñaanal bay Mokhtar Diassé di sëriñ daara yal na yàlla barkeel yëngatoom ak dalam mu liggéey na ci kaamil bi liggéey bu rafet moom ak daara ji yëpp yal na yàlla fay ko yal na yàlla mayko ko njaboot gu barke njaboot gu wëttu Alxuraan ci barke Cheikh Tidiane Chérif radiyallaahu taala yal na yàlla dimbale mudir jim bi tey moom itam ba mu ñibbi si waat Sénégal eh, ànd ak jàmm fekk njabootam ci jàmm yàlla barkeel yëngatoom te defal ko mboolem màng ci Arabie Saoudite maa ngi gërëm sama njaboot gi yëpp ñu nekk Saara ñu nekk Bustaan ñu nekk Léona ñu nekk Bongari ñu nekk Saam ñu nekk Medina baay ñu nekk ci région yëpp surtout dakaar ñëpp maa leen di gërëm parce que fu nekk rek nit bàyyeekoo na fa ñëw teew si ci kaameel bi muy Léona muy Saara ak fu mën a doon ñoom ñëpp teew nañ buy euh, Dakar euh, yaa si saan ñëw na teewal waa dakaar yëpp def defa bu mat li mu war a def yëpp ci teraanga mu def ko kon maa ngi koy ñaanal yàlla moom itam yàlla barkeel yëngatoom ak dalam yëpp yal na yàlla te yokk ko moom njaboot gi nekk dakaar yëpp di ñaanal njaboot gu góor gi nekk dakaar ak njaboot gu jigéen gi di ñaanal tam ñu nekk ci diaspora bi yal yàlla dimbale leen jotal leen seen mboolem càkkutéeb yàlla barkeel leen barkeel seen njaboot di ñaanal yaa Mariama tam ci njir yi la bokk yaa Ndey ci njir la bokk yaa Ndey Kitaan ci njir yi la bokk Penda Paal Ndey Seck ñoom ñëpp ci njir yi lañ bokk ak euh, Seexu Tijaan euh, Kitaan bu ndaw ak bu mag yëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal mboolem koo xam ne yëngatu nga ci kaamil bii ne te yàgg yëngatu ci pey bi rek yal na yàlla kàttanal la te may la toujours loo ci yëngatoo di di wax ne liggéeyal baay amul pertement parce que balu teng si la boo ko sànnee rek day waat ci yow kon man ak yéen nangul ngeen ma suma xaal bi ci suma liggéeyal yàlla parce que yéen ñëpp ñëw ngeen jox seen njaboot mu ñëw yaa Mariama en direct la Kaolack ci liggéey bi ebal na doomam ki nga xam ne mooy taawam mooy kii mu ñëw ak njaboot gi yëpp teew nañ amut ko teewut ñëpp takk nañ seen digg ñëw liggéeyal baay waaye liggéeyal nañ nag ku jara a waaye ku am sëriñ boo xam ne biine ne sëriñ bu mat sëriñ wala sëriñ boo xam ne njëriñ la kooku dañ koy liggéeyal kooku dañ koy xidmaal ci li paay rek laa leen di woo boobu ma leen fenn ku dul ci baay ndaw lu yomb kaañ dem ci baay ndaw lu neex ci loo rek laa leen oo oowu ma leen ci lenn lu dul nañ liggéeyal baay nañ xidmaal baay nañ am ëdëb ci pays baay bi nañ ponk njabootu baay gi nañ ponk mboolem taalibe baay waaye nañ ponk mu xaddami baay yëpp parce que ñoom ñëpp ay ay ay ay liggéeykati Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baara Ndiaye boo demee ci kër Seydi Aliou Cissé moog maam Ibra Fall benn boo demee kër Cheikh Ousmane Ndiaye moog maam Ibra benn lañ boo demee ci Cheikh Omar Touré moog maam Ibra benn la boo demee ci kër Serigne Baye Baye Niass moog maam Ibra Fall benn la kon ñeneent yi nga xam ne bii ka leen fekk won muy juróom kooku mooy cinq yi maanaam mooy juróom juróomi pay yàlla yi dal di mat waaw ki sax juróom la taxawee ñaari tànk ñaari loxo bopp bi ñëw kun paya kun nekka rek mu dal di nekk ñooñu duñ tàggoog bàyyi daay man kon ñu ne tam yaa leen ne moo bëgg baay yaa leen ne yaa bëgg baay yaa leen ne yaa bëgg baay yaa leen ne yaa bëgg baay yaa leen ne mooy waayu baay yaa leen ne moo bëgg baay yaa leen ne mooy waayu baay yaa leen ne mooy waayu baay yaa leen ne mooy waayu baay yaa leen ne yaa bëgg baay yaa leen ne mooy waayu baay bayanine moy moy bayanine moy moy bayanine moy moy bayanine moy moy gëseen ko mu mel ni gaynde mooya fan la jëm ma nga jëm ko si bàyyi ngir liggéeyal rasulillahi si yaare maam de yaa ci man weeru koori de yaa ci man jàng kaamil yi yaa ci man yow la bàyyi rangal garaatab liggéey yaanel ne caam du ndeexul bakkanam fob na ko moom jébbal ko baay lépp lum xam jox na ko baay saydaane na yow dundal ta wér ku mel ni yow rek moo war a dundu ku mel ni yow mooma mën a wér ku mel ni yow dang fi yàgg lool ci baaxu maam Ibra Faal bisab baay bu xasee jot yaanel ne caam laxasaayu na tanaa ndaw yi jugleen ñu xidmaal Barhama Ñas yaa de ndeysaan yaay xadiimul baraam yaay liggéeyal baay ci pey bi yow njabootu baay gi ñoo la ko seddeel sayqa nenne xamoo morom yaay nenne baay ci pey baay aayoo bee yaa soldaar bu mag ci pey yu baay yaa nenne yow amoo morom maa Ibra Faal moo la ne yaa nenne yow raw nga leen jiitu nga te yow duñ billaahi lii na yow imaamul akbar yow la naw ci pee yu baraama ñas sa liggéey bi yow wér na yow yaa ne ne dundal te wér ci baaxu baay baraama ñas ku ne amiin yal na ko fekke ci baaxu baay baraama ñas ci barke Cheikhu Tidiane barke rasulullahi xabru ba yow xamme na la yow lépp loo yóbbu ko fa yow baraama ñas yow moo la saf bilaay lii wér na jaami yow bu xajjuma jotee xabru baa ngay riit ka la ñuy màggal mooy baraama ñas njiital soldaare ya moo di sayqa ne ne mi waayi baraama ñas yok lu baa cee ca baayam ma ngay muñ di xool jaam ya wow billaahi ku ko xool texe kum xool nga texe ki lay sayqa ne ne yow sër kër Haliyun gërëm na leen waa kër maam Ibra Faal gërëm la yow waa kër baraama ñas gërëm la yow yaa nen na caam amoo morom yaa nen na caam amoo morom amoo yaayi faydu amoo morom waa Makka ñoom xam nañ la yow billahi yaay amoo morom waa Faas naan ba fa demee ci démb baay di leen xool yow xam nañ ñoom ka woon billahi tey moo fi jaar waay ma ne pali yow ñett demal yow ca tey bañ baa nga dem ca koosi bàyyi madina wala saam yow yaa fi toogal baraama ñas di liggéeyal bàyyi liggéey bu wér wallahi yow xooloo le neen lu may barhaama abdullahi jaam yi kon daw leen ñëw yaay ku bëgga xidmaal baraama ñas bilaahi yow nii ngay mel suma salaatan wa tasliman may taxawlu di sàkku ñan kulal insi na ñaanal yaay mu sax fi lool te yàgg fi lool yàlla nang fi wéra lool te yàgg fi ci baaxu maam Ibra Faal ci barke baay ci barke baay ci barke baay baraama Allah bëgg nañ la dootul daya Allah yaay neen ne caam ala yaa yow lañu wóolo ma ñas yaay neen ne caamo ala ala ala ala laay lay la laabaay ala jërëjëfe yaay ala jërëjëfe yaay ala jërëjëfe yaay ala jaarama yaay booy ala yaay neen ne caam jaamu baay bi waayu baay ala yaay nene caam ala mooy waayu baay la bëgg ne la dootul daya ala jaamu ibra falla ala yaay yow lañu yaakaar ala àndandoor bi yow la ala yaay yow lañu yaakaar ala àndandoor bi yow la jox nañ la xol yi dootul daya ala yaay neen ne caabo ala jërëjëf yaay jërëjëf yaay ala jërëjëf yaay ala jërëjëf yaay ala jërëjëf yaay ala jërëjëf yaay ala jërëjëf yaay ala jërëjëf yaay ala yaay neen ne caam Allah dundal wéeral yaay Allah sa onsa Allah sa ordonnance yaay neen ne jaam Allah dundal wéeral yaay Allah sa onsa Allah sa ordonnance Allah bëgg ne la dootul daya Allah yaay neen ne jaam Allah Allah jërëjëf bu baax jërëjëf euh, sacré yi seen sikar si am na xaal trop macha allah yaawa Sarr papa Bayaadi ñoom ñëpp yéen ñëpp seen bi am na xaal jërë ngeen jëf parce que sacré yi bàyyi ngeen yéen ay sikkarkati Maolana Cheikh Ibrahim ngeen radiyallahu taala anhu kon bu ngeen taggee bàyyi rek macha allah mm, xol yëpp danañu delluwaat ci yàlla waaye da ngeen tooyal xol itam parce que taalibe Baye moom li koy bégal rek mooy sikkar euh, tudd yàlla rek mooy tooyal xolu taalibe Baye surtout rawatina xaarifatu bilaay ak euh, wér de salaatu fatiha kon ñu ngi kontaan bu baax di leen wax ne euh, dana nekk suñ mbégte trop ñu bokk ak yéen jotaay rawatina ci bis bu sell bu mel ni ñu bokk yéen jotaay wax dëgg yàlla sant yàlla maa ngi di gërëm yéen sama njaboot ci seen taxawaay maanaam président yi mag ñi njiit yi sëriñ daara yi jigéen ñi yëpp teeku ngeen jàppale ma ci bis bi ndax damay toujours ne damay toujours ne li ma leen di taggee ne ay jàmbaar ngeen mooy dangeen maa nangul sama xaal bi ci baay man ku nekk góor rek mu may nangul sama xaal bi ci baay parce que man awma taxawaalu ci baay man bu baay xewlee rek amatuma beneen programme moom rek moo nekk sama mission boo xam ne ku ma si fekk si rek bàyyil xel ne maa ngi ànd ak yow ci yàlla toujours liggéeyal baay rek xidmaal baay guddi ak bëccëg muy taw muy naaj xàmmeewu ma naaj bu tàng ci baay xàmmeewu ma muy taw ci baay parce que su ma yëngatoo ak suma dal yëpp Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu euh, suma maay repas daf ma yar ci baay amutoon lenn loo xam ne bii ne doon na ko weccee ak bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye lu mu ko jaayante rek mu wëccee la ko ànd ak baay Chérif كيف يعلو بعد الفراق سواء بلدتي غاب ببرها ودياء شيخ بين حيدارا لدى بليد فتردى شف وادي ثوف في باء شيخ هيمانا لكل قدم وكتم هيمانا بينا لرجاء سيحتجان بين حيمانا لكل فخر جليل استروى من باره أشياء سيحتجان هازما كلهم بدون امتداد غار شيقي وكلهم أولياء شيخ تجان بين شيخ تجان baay ne Cheikh Tidiane baay ne Cheikh Tidiane baay ne Cheikh Tidiane baay ne Ahmadou Aslo Muhammadu Fadan suma mutaaru Ahmadou mitaa Cheikh Tidiane suma min baadi Muhammadu fagarun xasurat aniraki usama Cheikh Tidiane muy ñoom fu ñuy jëlee ci baay ñamam nga jar na ñëpp jooy ñas yaa ay ganeen ba koo giseen mu mel ni sang ba xokkaram njaboot ga yëpp na téréem muy battale ka tàggatoo est-ce que li le ka bam fi baxoo jariña seen ci xabru maam alaaji ñaas mag nan ko baay dooma fi ba yeg na mbir mi sotti bay daal di dékk ay loxom mi ne bu yëpp dëkkandoo mu ñaan ci laahu rabbana malaaka yëpp na am bay daal di yeeg ana kabir seen abiyon ba daal di naaw masin ba naan allah ba docteur maaliku dayaan du docteur la fekki hon dogal ba moom la fekki hon loon nang la rabbana waxoon ma day dajeeg mbelam baay ilaahu waahidul qahar kiley borom kun fa yakun mbaay lum na koon loolu du jaat nañ farlu laa ay ngaramam ñan jéema bëgg ay ngaram kon buñ démé ba def fa baay danañ dajeek ngaramam bu baax macha allah kontaan mhm. mhm. mhm. jotaayu Harifatu Billah du du ñàkk gaa yi ci yàlla parce que boo tuddee yàlla rek dañuy delluwaat ci yàlla kookum kenn mënu ko régler pee yàlla bi mooy yëngatu moo tax ni muy yëngatoo ci cin li ba mu noonu lay yëngatoo ci nit ki moo tax yëngatu bi du ci nit ki ci jëm yàlla ji la yàlla ci boppam mooy yëngatu ci nit ki parce que yàlla bu ne bind naa sama xalifa ci kaw suuf mu nekk doomu aadama war na ñoo xam ne yàlla ku fonk doomu aadama la kon mu nekk xalifa yàlla nit doomu aadama moo fonk moo nekk xalifa yàlla ci kaw suuf parce que bàyyi ngi wax ne nit rek la yàlla màggal fonk ko di ko yëkkati di ko yëkkati ba bu juddoo ñi di ko yëkkati di ko fab ba keroog buñ koy delloowaat ci boroomam danga koy fab loolu moo tax fuñ tuddee bàyyi waaye nag kila la xamal loolu fuñ ko tuddee rek yow waratoo nekk da nga war a delloowaat yëpp ci borom parce que keroog bi ngay fëgg sa dënn maa yàlla suuf dafa delluwaat ci suuf ndox delluwaat ci ndox lépp delluwaat ci lam doo doon ngelaw delluwaat ci ngelaw nga sog a nekk di yàlla moo tax maa ngi leen di ndokkeel bu baax di leen siyaare di wax ne eh, siyaareante ci yàlla mun ta ñàkk ci ay taalibe baay ay taalibe baay yoo xam ne bii dañoo bëggante ci jëmi Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu il faut ñu jotaay saafuwante siyaarante ci baay Maolana Cheikh Baye radiyallahu bañ ko bayalee tool ba pare taalibe yëpp ñoo ne ko baay bayal nañ la tool beesal nañ la ko angaar baa ngi nii bàyyi na alhamdulilah. delluwaat ne alhamdulilah mu ne xam nga lu tax ma sant yàlla mu ne man alaaji Ibrahima kero ba ngeen jiyee man kero laa góob mu ne xam ngeen li ma ci namm mooy daje gi ngeen daje nii rek namentu ko ante saafante ñi gëj a gisante gisante mu ne gisante gi ngeen gisante ci jëmm yàlla ci ante ak bëggante bi ngeen bëggante yéen taalibe rek loolu rek laa namoon ci tool bi waaye jubluwuma ci dara man alaaji Ibrahima kero ba ngeen jiye rek laa góob moo tax euh, maa ngi kontaan bu baax ci seen xaal bi rafetlu naa ko maa ngi wax ne toujours maa ngi ànd ak yéen toujours rek maa ngi ànd ak yéen ci baay te ànd ci baay amul pertement lu lu nit di wër baay ngay wër ñiy dugg xulwa baay la ñuy seet ñi nga xam ne bii ñi ngi def riyaada baay la ñuy wër waaye ku ci def riyaada borom kaala gi ngay gis ku ci dugg xulwa boko waxe boko waxut borom kala gu jek gi ngay gis morana Cheikh Ibra kon nañ nangul bàyyi fi nangul ko legi ci tel walangan gën bàyyi bay sik sak da nga nangu ci ni wala nga nangu ci nii konte da nga nangu ci ni ñaka nangu munta am da nga nangu rek wala ñu nangu la da nga nangu rek wala ñu nangu la balañ laa nangu nag balañ laa nangu nag laa nangu nag nga nangul bàyyi parce que arifatu billaahi parce que arifatu billaahi ki nga xam ne dem na bu fëgg dënnam maa de yàlla yàlla deselatu ko dara waaye nag na ko gërëmee bàyyi na ko bëggee bàyyi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp parce que xadara jumaa jot na eh, lii lii lii lii li li neex yëpp ci yàlla ji nit mënuñ ko jeexal da ngay xuus rek ba tefes ba tefes rek nga bàyyi géej gi mu mu jàll waaye ni ko danañ xuus <laughs> waaye comme comme nag xadara juma jot na léegi dañooy da dañooy dañooy dañ koy émale fii gum rek ba ba ba beneen yoon ñu continué waat parce que yàlla ji moom du jeex boo xuusee ba foog ne yaa ngi ci digg bi fekk xaajagala xaajale goo ko ndax yàlla yàlla la yàlla ca yàllaam nga ba tey mi ngi nekk di yàlla te tey la gën a neex tey la gën a bees tey la gën a xam nga gars yi dañuy wax naan yàlla léegi waxambaane la boo ko dóoree daf lay dóor mais fi mu ne nii la gën a dansé parce que waxuma la dóor sa waaye du la baal parce que soriwut mbir mi soriwut de gars yi ñoo sori mbir mi moom soriwut tey la gën a bees tey la gën a neex asalaamaaleykum wa rahmatullah Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd baay yéenay liggéey liggéey faydu bi si ji barahama ñu leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox